محمد من الإله بالرسول أطلبه ما سرمدا عني ليس يسلب حمدت رب الله وهو المطلب وكونه للدخول والجلب مصليا على بشير يهب لي المنى وبعداية يسلب محمد من في هداه أرهب وفي امتداهه أتاني رهب دعوت ربي به وأطلبه منه بي سعادة لا تسلب دعوت ربي به وأطلب منه بي سعادة لا تسلب أبو بكر أسألك اللهم بالصديق مناي بالتوفيق والتصديق بجاره دلي بالتوفيق في كل شيء وتكن رفيقي وجيبي لما ينير سوقي وربي لكل ذي فسوقي هدد به عناية بالتفريط واسلك به بأنفع التاريخ كفيتني به أذى البكريخ في البر والبحر وفي التاريخ ردت عني أذى الزنديق قبل وجبت لي بالتصديق ردت عني أذى الزنديق قبل وجبت لي بالتصديق عمر عنه وعن خليفة الله عمر الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما السماوات وما في الارض ومن سال ليس عنده الا باذنه ما بين ايديهم وما خلفهم لا يتون بشيء من علمه الا ما شاء وسع كل السماوات والارض ولا يهمده اسمهما اسمه ولا علي عسيم jërëjëf sëriñ Touba jërëjëf sëriñ Touba gannaaw bi ñu leen nuyu yéen bokk jullit yi bokk taalibe yi fii ci mbay na ñu fee ñëwoon tey ci bis bu mag seet soon sunu xarit sunu wala réew yàgg sëriñ Papa suma sama xarit lool mu yàggam lool mu yàggal lool am bisam bi waxoon na ko ñëw si na teew si ko fi di ko sant di ko gërëm di sant képp ko xam ne teew nga ci bis bi di ñaan ci daraje sëriñ Tuubaa képp ku teew yàlla yàlla fase aajo àddina ak àllaaxira ndax de bis la boo xam ne si daan ko def sax ci leelu xadar gi waaye dañ koo toxal ba ci eh, juróom benn fan ci weer wi ci ci weer yi moo tax ñu def ko tey bis bii dajeeg bisub samedi ñu bëgg nag woote fi bokk yëpp teew si fi ñu di xamal ne képp ko xam ne teew nga fi rek yàlla sëriñ bi faj sa aajo adduna ak àllaaxira moom Pape nag day koo xam ne si kenn la ci man ku yaru ko amit teggee ma di ko ñaan dara ji sëriñ Tuubaa fan wu gudd ànd ak wér mucc moo ko ko ñaanal te moo ndax yaayam day sama wëlëra lool kon nag mosaan bokk yëpp mosaan mooy ñëw ñëpp laay doon ñëw sax waye xat-xat moo tax ma ñëw ah, ànduma ñu bari waye nak itam teewut melni and nak ñep na sama xol set na lool ñoo fekk teranga yi bari na dara manqué wut ñaan mu yag ko taxaw yag ko def ci serigne touba assalamu alaykum wa rahmatullah jere ngeen def yalla ak ko xam kon nee na ko jemal abdi koku dañ koy tublo ñetti fan wala ñetti bes waye ñetti fan mo gëna a tee ñu bàyyi ko bu togol dañ koy rey ci jasi sallallahu alaihi wasallam sharia sariya da buku rey te bu ko sharia reey nee bu ko ken sang bu ko ken sang yere ya, ta bu ko ken julli ta bu ken rob fa ñu sur jullit ya est-ce que atte doxal lañ ko fi ta dañ ko waroon doxal ta yellu li tam ki nga xamne du julli te du bay fal borom ker gi séré ne eh, ki du julli ëllëg si mu jox ko nit ñi julli ديون خو أنفسكم وأهلكم نارا وقودها ناس والحجارة عليها ملائكة القلال سيدنا النبي صلى الله عليه في أهل ما يبرون مولانا أسمينا فقولين سنبوك أكسين جبار سفر سوى خمني تك تك أي نت أي خير نيوي ماتيا وينك نتبير سفر سوسو أي ملائكة يقمني يخيس لنيو يطر لنيو وإنك دنيو دف لدود لن لين لنيو دفه تلو ليب نكا جولي رك ما kon nit ñi bu fekkente ne sa alal moo la fegg bo doo jaamoo yàlla nam ware mu ngi ci kanam ya ahlas na nan barase wo ci ñooñu nan barase wo ci ñi nga xam ne yàlla def ne yaa ahlas na la laa tulhiikum amwalukum loolu fa ulakumul xaasiroon yaa perte parce que alal boobu ngay dem mu teela jaamu yàlla bés dana ñëw nee na firaaqu awtaan wa axwaan alxawa wa nafais wa xoloolu batnu jaddati sallallahu alayhi wa sallam ne ne doomu aadama bu génnee ci àddina ñett da koy gunge ba ci bameel ba muy ñan njaboot bi dana ko gunge ba ci bàmmeel ba alal bi dana ko gunge ci bàmmeel ba jëf ba dana gunge kaw ba ci bameel ba buñ tegee ba teg ci kuusu bàmmeel bi alal bi ne ah àdduna moo ñu boole woon balaa ñuy waxati dara mu ne laaj den bàyyi diw ci alal bi kon alal bi àdduna ba alal ba jeex na dem na ci kooka njaboot bu ñu waxee mu ne wala bàyyi diw kon njaboot ma itam ngoy nañu ci kooka ana lan moo des waaye bàyyi seen yitte ngir sëñ mbay coox waaye bàyyi seen yitte ngir sëñ am di coob waaye bàyyi seen yitte ngir sëñ maxtaar ak ngir si ma lamin ak ngir tubaa kon su boobaa waa dëkk bii wareen waree warees jon warees na leen a jox seen i yëf nag nun moomuñu ci daa ñu waxoon na balaa ñuy wax dara ki nga xam mooy chef de village su dëkk bi ci kaddu yu tënku mu dalal mbooloo mi bu noppee ñu jox Baye Malick Tine mu dalal kilifa yi bu noppee ñu jox sëñ Maxtaar mii nga xam ne ku ne ko boole ci kër gi ñàkkul lu mu wax bu noppee nag ñu jox ki nga xamante ne mooy borom bés bi moo toog nii Seydina Aliou kon tey mii sëriñ Mbay Coox moo ko dara jaale bis bi tey kon lu nu fii def Seydina Alioune koy defal bu jagee yawa bu jagut ci nu na waaye yépp yawa noo ko bëggee rek noona la ndax sëñ Mbay jéggi nañu bari waaye sa jikko sa mbaax sa bi ak ni nga ko jàppee ak wàcc waay woon ko jox te Daaru Salaam kër ma Jóob séeréer bett na ko lool ma ne ko Seydina Aliou fa muy xool xamu ko su boobaa bis bi yaa ko moom kon ki nga xam ne mooy chef de village bi moom la ñu ko jox bu waxee yóbbaal ñun ñëpp noppee jox Baye Malick li daal mooy kàddu yu ñu yéene woon mu demee nii. rahmatullahi mboolem jullit yi fi teew maa ngi leen di nuyu di leen baalu ak di leen baal ak di leen dalal ci suñu bés bi e, suñu doom bi bi siñ mbay ah mu ngiy doxal loo xam ne moom la maamam doon doxal a ah, xele yi bari na ci xele yoo xam ne fi mu a xele bu jóg day dem ci leneen waaye moom yàlla àtte na e duppee nañ ko siñ bay coox la siñ mbay coox doon dogal di ko jéem moom la taxaw ma bog ngeen ñaanal ko ci cat yàlla jàppale ko ak siñ tuuba ak mboolem jullit yi fi ne ñu ñaanal ko yàlla jàppale ko ndax am na ñu bari ñuy woote loo xam ne li jëmul fen te day am ay nit ñu def di fa def lu ne moom nag comme yàlla lii la ko xeer dama bëgg yéen waa dëkk bi ñu ñëpp ñu takku jàppale ko ngir yàlla ndax kat mbéy na moom suñ mbaay toox bam fa duggeek léegi mosa mosatuñ fee wax leneen loo xam ne lu jëmoo ci yàlla la ba yàlla jële ko fi kon nag su yàlla atee moom mii mu ñëw di ko beesalaat li may ñaan waa dëkk bi nañ ko jàppale te yàlla tax suñuy def nag te yàlla tax day jëm ci kanam waaye suñuy def nag te ngir njistal la dinañ ko tegaat ci suuf maanaam dama cee mën dañaka sànni kàddu rek ndax Malick Tine moom mooy suñu kilifa mooy lépp bu waxee rek daanaka kenn jaratula la wax waaye comme maay borom dëkk bi nag il ma dalaleen baal leen ak ngeen baal maak jërë ngeen jëf